asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokk jullit yi rawatina sunu mbokk taalibe yi ci ndigalul cheikh mahamadul muntaxa basir xalifa général des mourides ci ndigalul sëriñ abo baraka xalifab cheikh mahamadul fadal mbàkke cheikh mahamadul basir mbàkke ibnu cheikh mahamadul fadal mbàkke jëwrinu kër cheikh mahamadul fadal mbàkke ci kilifteefuk sëriñ fàllu mbàkke xalifab sëriñ jili mbàkke moom cheikh mahamadul fadal mbàkke ak mbooleem njaboot gi bokk jullit yi rawatina sunu mbokk taalibe yi sëriñ basiru mbàkke moom sëriñ jili mbàkke moom cheikh mahamadul fadal mooy am mbégte di yëgal mbokku jullit yi ak mbokku taalibe yi bis bi mu baaxoo amal at mu ne di bisub sant Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ak Cheikh Mouhamadoul Fadel Mbacké mu di ko amalee ci diiwaanu Touba ca Ndindi di bisub ngan gu muy ganale mboolem njabootuk Cheikh Mouhamadoul Basir Mbacké moom Cheikh Mouhamadoul Fadel Mbacké ca Touba Ndindi mbokk yi bis boobu sàgg bu tedd bi baaxoo def at mu ne bisub màggal Touba gi bu dellu see ren mu war a yamook alxamis le 24 octobre ca atum 2019 ca Touba ca diiwaanu Ndindi Cheikh Mouhamadoul Basir Mbacké moom Serigne Jili moom Cheikh Mahamadoul Fadal di wax ni bis boobu nag mi ngi koy yëgal mbokku jullit yëpp ak mbokku taalibe yi képp kuy wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah rawatina ñi mu bokkal Sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul di beral ab yëgle nag ñi mu bokkal jàmbaar lislaam jabaari sëriñ tuba cheikh ahmadou bamba xaadim rasul cheikh mahamadul fadal mbake bàyyiwul ñenn bàyyiwul kenn alxamis le 24 octobre ci atum 2019 sëriñ bi nee ma ngi woo ñëpp ci diwaanu touba ca ndindi ne boobu nag bu ñu ci yeggee ñu baaxoo doxalee programme bi at mu ne noonu koy doxalee ca ca Ndindi bu ñu xëyee daañu dalal gan ñi njabootuk sëriñ Tuubaa Cheikh Amadou Bamba ak njabootuk Cheikh Mahamadoul Basir Mbàkke moom Cheikh Mahamadoul Fadal ak njabootuk sëriñ Fàllu Gépp ginnaaw ba nu yeggsee daañu door njàngum alquraanu karim téere borom bi subhaanahu wa taala ak xasaay di sëriñ Tuubaa Cheikh Amadou Bamba xaadimu rasul daañu dundal bis bi ci bernde ak ay salaatu ala nabi daañu fa amal itam waxtaanu diine joyal lépp jëmale ko ci sang bu tedd ba sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul ak waxtaane Cheikh Mahamadoul Fadal Mbàkke moom sëriñ Tuubaa Cheikh Amadou Bamba xaadimu rasul waxtaane mbokk gi ak bokk ya fa daje bu ñu noppee daañu dundal bis bi itam ci xasaay di Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ak mboolem jàngatu xasida ya fay teew yépp bokk yi bis bangoog war a yemook alxamis le 24 octobre ci atum ci diiwaanu Touba ca Ndindi sëgg bu tedd bi woote bis bi nag di Cheikh Mouhamadoul